باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وقال عطاء إن استنثر دخل الماء بحلقه لا بأس إن لم يملك وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه حدثنا عبدان وأخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ida nasala ida nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu allah wa saqaa bunti nit ku oor su fekkee dafa lekk wala mu naan fàtte ne dafa oor ata mu ne su fekkee ne dafa fiiru maanaam dugal ndox mi ci ay paxi ba kanam ndox mi jàll dem ba ci poroxam mu ne dara nekku ci su fekkee ne mënu koo téye amma su fekkee mën na koo téye ba génne ko su boobaa war na ko génne xasan mu ne su fekkee ne weñ itam dafa dugg ci sa gémmiñ ba jàll dem ci sa purax mu ne loolu itam dara nekku ci mën ta yàq koor xasan ak mujaahid ba tey ñoo wax ne su fekkee ne ki or dafa fàtte ba sëy jabaram mu ne loolu itam dara nekku ci su fekkee fàtte ci dugal jëlee nañ ci abu hurayra radiallahu anhu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ki or su fàttee lekk wala mu naan mu ne na mottali koram ndax yàlla koo leyal moo ko naan dal itam loolu yàqut koram sallallahu alayhi wa sallam باب السواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال raaytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam yasaaqu wa huwa saa'imun maa laa uxsi wa laa u'id wa qaala abu hurayrata an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam lawlaa an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki inda kulli wudu'in wa yurwa naxwuhu an jaabirin wa zayd ibni xaalidin an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaxussa saa'ima min gayrihi wa qaalat aa'ishatu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam assiwaaku matharatun lilfam wa mardaatun lirabbi wa qaala ataaun wa qataadatu yabtaliu riqa bunti socc bu tooy wala bu wow ci nit ku or amir ibnu rabiata tudd na ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy soccu fekk dafa or mu ne ci loo xam ne mënu koo lim mënu ko kont maanaam ay yoon yoon yu bari la abu hurayra itam radiallahu anhu jëlee na ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent wax ne su ma bañutoon a mbir mi ci suma xeet tatal ko ci ñoom kon danaa leen digal ne waxtu wuñ jàppee rek nañ socc jëlee nañ ci jaabir ak zayd ibnu xaalid mu jëlee ci yonent ñu jëlee ci yonent bi salallahu alayhi xadis jooju te mu ne yonent bi jagleelu ko ku oor ak ku oorut maanaa li mu wax ne bu ko bañutoon a diisal ci xeetam dana leen digal waxtu bu ñu jàppee ñu socc mu ne loolu yonent bi jagleelu ko nit ku oor ci ku oorut maanaam ki oor bu jàppee mën naa def loolu ki oor sam su jàppee mën naa def loolu mu ne Aïchatu wax na ne solo na jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax ne soccu dafay laabal gémmiñ te dafay gërëm gërëmloo borom bi jalla jalaaluhu ata ak qataadatu wax nañ ne même su fekkee dafa wan lor yi gannaaw bu mu soccoo dara nekku ci mën na ko wan حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني زهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ fa afraga ala yadayhi thalathan thumma tamadmada wastanshaq wastantara thumma ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-marfiqi thalathan thumma ghasala yadahu al-yusra ila al-marfiqi thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna thalathan thumma al-yusra thalathan thumma qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qala man tawaddaa wudu'i haadaa thumma yusalli rak'atayni laa yuhaddithu nafsahu fiihimaa bi shay'in illaa ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi solo nañ jëlee ci Yazid mu jëlee ci Hamran mu ne gis na Seydina Osman radiyallahu anhu mu jàpp mu ne bi muy jàpp nag li mu njëkk def mooy sotti ndox mi ci ay loxoom raxas ay loxoom ñetti yoon da lax ñetti yoon daldi di fiiru mooy dugal ci sa bakkan génnaat Malben Radio daal di raxas xarxana moom ñetti yoon raxas loxo ndeyjooram ba ci conci li ñetti yoon raxas itam loxo càmmooyam ba ci li ñetti yoon daldi di boppam dal di raxas tànki ndeyjooram ñetti yoon raxas tànki mooy bi itam ñetti yoon ba pare wax ne moom Seydina Usmaan ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi mu jàpp jàpp lu mel ni jàpp lii ma jàpp man ba pare wax ne képp koo xam ne jàpp nga jàpp lu mel ni suma jàpp lii daal di julli ñaari raaka yoo xam ne sa bakkan waxtaaneewul la ci mbiri àddina dara ci ñaari rakk ya mu ne yàlla dana la baal li jiitoon say bakkaar yépp sallallahu alayhi wa sallam Malben Radio baabu qawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallama ida tawaddaa falyastanshiq bi manxirihi almaa walam yumayyiz bayna alsaa'imi wa gayrihi wa qaala alxasanu laa ba'sa laa ba'sa bilsacuuti lilsaa'imi in lam yasil ila xalqihi ويكتحل وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك kon ci la yonent wax sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen su jàppee na dugal ndox mi ci ay bakkanam génne at mu ne te xàmmewut ci ku or ak ku orut maanaam fasalewut ci ku or ak ku orut ku or mën na koo def ku orut mën na koo def xasan mu ne saxut dara nekku ci mooy li ñuy ubbee bakkan soo xamee ne sa bakkan yi fàtt na pomp yi nga xam léegi ci li xew da koy pomp ci bakkan yi mu ubbi bakkan yi mu ne ko or mën na koo def dara nekku ci su fekkee ne fexe na ba lim pomp noonu du dem ci pour poroxam mu ne tusngalu itam dara nekku ci ata itam wax na ne su fekkee ne dafa gàllax ndiku daal di dindi li nekk ci gémmiñam ci ndox dara nekku ci du ko lor su fekkee ne wannut ndox ma ba mu ko ba mu ko laxanti ko pare mu ne nag su fekkee daf koo sotti bu génn la des ci gémmiñam loolu dara nekku ci mu ne daakaande bii ñuy màcc itam su fekkee ne boo ko màccee doo mën a doo wan jeexiti daakaande bi ci sa gémmiñ lor ya su boobaa tam dara nekk ci waaye loolu jafe na ñàkk koo ma ci daal moo gën mu ne su fekkee ne wan na ko maanaam macc na daakaane wan naale lor ya mu ne waxu mu ne kooram yàqu na waaye nag tere nañ ko luñ sib kon nag moytu ko mu gën mu ne su fekkee ne itam dafa dugal ndox mi ci ay bakkanam ndox mi jàll dem ba ci poroxam mu ne su fekkee ne mënta tee ndox mi mu ne loolu tam dara nekku ci sallallahu alayhi wa sallam باب باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق قال ما لك قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق قال أنا قال تصدق بهذا bunti nit ku see jabaram ci weeru koor solo nañ wala tudd nañ jëlee ci Abu Hurayra Abu Hurayra yëkkati ko xadis yi daf koo yëkkati jëmee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne képp ku dog bis ci weeru koor ci lu duut benn ngant lu duut benn feebar mu ne boo doon or jamono lépp bis boobu mënoo koo fay soo oroon jamono lépp mënoo fay bis boobu ibnu Mas'ud ak Saïd ibnu Musayyib ak Shaabi ak ibnu Jubayr ak Ibrahim ak Qatada ak Hamad ñoom ne nañ kooku na fay benn bis rek wutale ko bis boobu mu dog ba tey solo nañ jëlee ci Abdurahman ibn Qasim mu ne solo nañ ko jëlee ci Muhammad ibnu Jaafar ibnu Zubair ibnu Awaam ibnu Xoylit ba tey ñu jëlee ci ibnu Zubair moomu mu ne solo nañ ko ne Aïchatu dégg na dégg na Aysatu Aysatu di wax ne toog na fi yonent bi góor ñëwal yonent bi sallallahu alayhi ne ko man day lakk naa yonent bi ne ko lu la jot mu ne ko dama seeg suma jabar ci weer koor mu ne foofu ñu indil yonent bi li ñuy wax àndaar maanaam nattukaay yi mu ne yonent bi ne ana ki lakk mu maa ngi nii mu ne ko jëlal àndaar jooju nga saraxe loolu ci nekk du de nag loolu ku nekk la ku nekk ko mën a def ba pare def loolu neex dem uti àndaar rek saraxe kooku yonent bi moo ko jagleel loolu mu def ko waaye su fekkee ne yow danga dem def lu la neex ba pare dégg nga xadis bi ko jiitu boo ko doon fay jamono lépp bis boobu dootoo ko mën a fay kon nag moytu ko moo الأب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلبت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به fa qaala rajul ala abqara minni ya rasul allah wallahi ma bayna laabatayha yuridu alxarratayni ahlu beytin afqaru min ahli beyti فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك ne bunti ku oor ci weeru koor te amu dara mu nañu joxel ko sarax ba pare mu war a kaafara na kaafara mu ne solo nañ jëlee ci abu hurayra radiallahu anhu mu ne mas nañoo toog fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ak góor ñëw daal dina yonent man alaku naa yonent bi ko lu la ne ko dama tàbbi ci suma jabar te fekk maa ngi or maanaam dama seeg suma jabar te fekk maa ngi or yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko am nga jaam boo goreel ngir ne ko déedéet yonent bi ne ndax man ngaa or ñaari weer yu tegaloo mu ne déedéet yonent bi ko ndax man ngaa leel juróom benn fukki miskin mu sax fi sax ñu toog ne nit dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi li bi addiyee xanaa àndaar yoo xam ne nga fees ak tàndarma àndaar mooy nattukaay yi nattee ci magasin yi ak fukkus si ne yonent bi ne ana ki doon laaj léegi waa ji ne maa ngi nii mu ko jëlal loolu nga dem saraxe ko waa ne ndax danaa ko sarax ñoñ néeg bu gën a ñàkk sama ñooñ nekk bi yow yonante yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne ko gëñ naa ci yàlla ne diggante ñaari doj yii amul ci amul benn néeg bu fi nekk bu gën a ñàkk suma néeg suma suma amul benn kër bu fi nekk bu gën a ñàkk suma kër yonent bi daal di ree sallallahu alayhi wa sallam ba sellam yi feeñ yonent bi ne ko kon nag leeral ko sa kër sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp ci mbaax yonent bi la de ba tey bu mu tax kenn dugg ci loolu foog ne mën ngaa def loolu neex ba pare jënd jox sa wakk déedéet baabul mu baabul mujaamici fi ramadaana hal yutcimu ahlahu min alkafaarati ida kaanu maxaawija xaddasanaa Usmaan ibnu abi shaybata xaddasanaa jariirun an mansuurin an zuhriyi an xumayd ibni abdirahman an abi hurayrata radiyallaahu anhu jaa rajulun ila nabiyi sallallaahu alayhi wa sallama fa qaala inna al-aaxira وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا qaala fa at'imhu ahlaka mu ne nit ku sëy ak jabaram ci weeru koor mu ne ndax la muy kaafara mën na cee jox waa këram su fekkee ñu ngi ko soxla mu ne solo nañ jëlee ci Humayd ibn Abdurahman mu jëlee ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne góor dikkal na yonent bi sallallahu alayhi sallam ne ko ki ma àndat dafa tàbbi ci jabaram ci bëccëg weeru koor Malben Radio yonent bi ne ko ndax dana am lu muy goree lay jaam mu ne déedéet mu ko ndax da nga mën a mu ne ko ndax dana mën a oor da nga mën a oor ñaari weer yu tegaloo mu ne déedéet ndax danga nga mën a leyal juróom-benn fukki miskin mu ne déedéet mu na foofu ñu indi yonent bi àndaar joo xam ne mu ngi fees ak tàndarma mooy nattukaay yi mu ne yonent bi ne ko jëlal loolu nga leele ko ci li la dal mu ne ko ndax dinaa ko leel néeg boo xam ne ñoo gën a ñàkk suma néeg bi suma waa kër képp kuy ñàkk ñoo la gën a ñàkk kon mënuma koo leyal beneen kër bàyyi leen kon yonent bi na ko kon nag leyal ko sa kër loolu yëpp ba tey ci mbaax yonent bi rek la waaye tey kum dal daal liñ lay laaj mooy nga or ñaari weer yu tegaloo wala nga goreel jaam wala nga leyal juróom-benn fukki miskin loolu mooy li nga xam ne mooy li taxaw baabu alxijaamati walqayi lilsaaim wa qaala li yaxya ibnu saalixin xadatanaa muaawiyatu ibnu salaamin xadatanaa yaxya an umar bni alxakam ibni thawbaana سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول وصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم Malben Radio bunti nit ku oor ba pare di gaji wala muy woccu te fekk dafa oor solo nañu jëlee ci Muawiyat ibnu Salaam mu ne Yaxya na leen jëlee ci Amar ibnu Xakam ibnu Sawbaan mu ne dégg na ci Abu Hurayra radiyallahu anhu yonent Abu eh, Hurayra wax ne su fekkee da nga or wëccu dal la nga wëccu mu ne loolu mënta dog koor ndax mu ne loolu dafa génne waaye dugalut wëccu dafa génne waaye dugalut te lu dugal mooy toj koor mu yàq koor mu ne ba tey tudd nañ jëlee ci Abu Hurayra mu ne dafay dog mu ne waaye wax ju njëkk ji moo gën a wér maanaam li mu wax ne kooram yàquwut jëlee nañ ci ibnu abbas ibnu abbas wax ne moo nga Ikrima ne koor lu ñuy dugal lañ la tere waaye terewuñ la looy génne mu ne ba tey ibnu Umar radiallahu taala anhuma daan na oor di nampatalu mooy li gàjj fekk dafa oor mu ne gannaaw gi mu ko di nàmpatalu guddi bañ a nàmpatalu bëccëg bi mu oree abu muusa al ashari mu ne nàmpatalu na ca guddi mu ne solo nañu tam jëlee ci saad ak zayd ibn arqam ak ummu salama ñoom ñépp ñu ne nàmpatalu nañ fekk ñu ngi or bukayr wax na ne jële na ci ummu alqama mu ne daan nañ nàmpatalu ci wetu sayyidatuna Aïcha radiyallahu te kenn du leen tere maanaam su fekkoon ne daraa ngi ci rek Aïcha dina leen wax ne yonent bi tere na ko waaye daan nañ ko def ci kanamam te du wax dara mu ne ba tey solo nañ jëlee ci Xasan jëlee ci benn nit xadis ju ñu yëkkati mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ki nam ki dog na kiñ nàmpatal dog na ayash wax ne abdul ala nettil na leen ne yunus a nettil na jëlee ci xasan lu mel noonu lu mel ni wax jooju mu ne ñu laaj ko ne ndax loolu ci yonent bi la jóge mu ne waaw ci yonent bi la jóge gannaaw gi mu ne waaye yàlla daal moo xam kon nag li gën a wér daal mooy wax ju njëkk ji koor luy dugal moo ko yàq waaye luy génn yàqut ko sallallahu alayhi wa sallam